ñeenteelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi yéesu wax na mooy kan yoon yu bare yéesu nee na man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man yéesu nee na itam man maay sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram nee na kenn du jële bakkanam ci moom moo koy joxe ci coobareem beneen yoon itam yéesu nee na man may leeru àddina si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund yéesu nee na bu ngeen saxee ci li ma wax nekk ngeen samay taalibe ci lu wóor te it di ngeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel nit ñu bare gëmoon nañu ne yéesu mooy almasi bi yàlla dige waaye ñi ëpp ca njiiti diine ya ñuy farisen yi sadusen yi nanguwuñu woon ne yéesu mooy almasi bi ñu ne yéesu ci doole seytaane la doon defe kéemaan yi dañu ragaloon ne bu nit ñu tàmbalee topp yeesu dinañu ñàkk seen dayo ak seen gëdd noonu ñu tàmbalee fexe nu ñu jàppe yeesu ba rey ko yéesu tàmbali di jàngal ay taalibeem fi mu war a jaar yépp dina dem yerusalem am fa metit te sëriñ yi ak xutbakat yi dinañu ko weddi dinañu ko rey waaye dina dekki bu amee ñetti fan lépp li yonent yi waxoon ci moom dina doon dégg fii la nettali bi yem léegi ma laaj leen fukk ak juróom benn lan la yéesu wax ci mbiram yéesu nee na man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man yéesu nee na itam man may sàmm bu baax bi beneen yoon yéesu nee na man may leeru àddina si fukk ak juróom ñaar lan lanu wax yooyu di won ci mbirum yéesu yéesu wees na ab yonent fukk ak juróom ñett lan la yéesu wax ay taalibeem ne dina ci jaar dina dem yerusalem am fa metit te sëriñ yi ak xutbakat yi dinañu ko weddi dinañu ko rey waaye dina dekki bu amee ñetti fan lépp lu yonent yi waxoon ci moom dina doon dëgg